Euh, moom moo daal naa ko junj léegi dañ koy daal di euh, doore ak euh, ki nga xam ni moo di président Bassirou Diomaye Faye restructuration bi nga xam ne daal na koy def jëmale ko rek ci wàllum sécurité bi foofu ca pale ba ki nga xam ne moom mooy colonel Cheikh Diouf nekk ancien responsable de la légion nord de la gendarmerie nationale moom nag nu daal di nommé gouverneur militaire di pale daal di jël li nga xam ne nag moo di charge wàllum sécurité bi foofu ca biir nga xam ne nag moom moo di euh, euh, colonel Adama euh, Gueye euh, daal di nu daal di koy xam bu baax a baax euh, ci li nga xam nag moo di wàllu sécurité ak expérience bi nga xam ne daal na koy am ki nga xam nag moo di colonel Cheikh Diouf moom nag moo daal di moo daal di jiite woon li nga xam ne nag moo di boobule sécurité ginnaaw bu nu sukkandikoo ci poste bi nga xam ni moom Pape Alé Niang daal di na koy def nan nga mën jàngatee changement bi nga xam ni kii di président Bassirou Diomaye fay daal na koy def jëmale ko rek ci wàllum sécurité foofu ca biir palais ba euh, kii di euh, colonel Cheikh euh, Diouf nu daal di koy wutu foofu ca biir palais ba nan nga mën jàngatee boobu boobule mbir nga xam ni daanaka mi ngi soog a ñëw mi ngi ñu ngi soog a tàbbi ci li nga xam nag moo di ci loxo taskatu xibaar yi ginnaaw ba nu sukkandikoo ci Pape Alé Niang boobule poste ki nga xam nag moo di Adama Gueye moo ko jotoon a jiite. Euh, dafa am loo xam ne je je pense que euh, président ñi mës a nekk président yëpp. Mhm. dañ koo am mu nekk seen ay prérogative bopp nga xam ne loolu euh, ñoom lañ ko dénk. ñoom ñooy xool ni ñu ko gisee ak ni ñu ko xalaatee ak ni ñu jàppee ne noonu la gënee ñu defee ko noonu. Mhm. bokk na ci lu jëm ci nomination yi ñuy wax bokk na itam changement yoo xam ne dafay am dañoo indi président Léopold Sédar Senghor mu ñëw xool ñi nga xam ne ñoom la wóolu ak ñi nga xam ne ñoom la bëgg àndal mu ànd ak ñoom. Euh, le président Abdou Diouf ñëw xool ñi mu wóolu ak ñi mu bëgg a àndal mu ànd ak ñoom. Mhm. le président Abdoulaye wadd naka noonu ba récemment le président Macky Sall ñëw à la tête du mhm. xool ñi nga xam ne changement yu bëri ci l'armée bi le président Macky Sall moo ko def xool ñi mu wóolu. parce que itam euh, nekk à la tête d'un pays du du du du lu du lu du lu simple. Mhm. donc dafa am tey jii sur le plan sécuritaire y a de gens yoo xam ne tout le temps dañu wax ne euh, le président Bassirou Diomaye fay na def attention ci nangam. Mhm. am na ñoo xam ne ñu ngi njort ne xëy na yenn mbir yi mën nañ ko mën nañ ko tëgg jëmale ko ci kawam pour man mhm. loolu yëpp dafay laaj. mu am des gens yoo xam ne leer na la ne am nañu xarañte gi et puis am nga confiance ci ñoom. et puis intégrité bi war ci sa diggante ak ñoom euh, mi mi ngi ci ñoom donc pour man loolu la ku yore pouvoir ku ci nekk da ngay xool ñi nga xam ne déjà jàpp nga ne am nañu compétence comme ni ñuy defee ak euh, li nga xam ne moom moo di euh, fonction yi ñu jox civil yi pour man lool la nomination yeeg yeneen ak yeneen de la même manière ngay xoolee ñoo xam ne jàpp nga ne Euh, à travers fi ñu jaar gëm nga ne ñii kat li nga bëgg ñoom mën nañ la ko defal li nga bëgg euh, ci ci ci moo xam ci wàllu sécurité la moo xam ci seen ay compétence la ak leneen ak leneen. Mm-hmm. war nañ la ko mën a defal ci loolu nag. nga ñëw fekk fi ay nit ñoo xamante ne en tout cas ñu ci bëri le président Macky Sall moom moo leen fi bàyyi mm-hmm. léegi ñaar moo am ci choix nga def li nga xam ne moom nga def ak le secretaire général du gouvernement ñëw fekk ko fi mu doon liggéey ak le président Macky Sall nga xool ko peut-être. mu leer la ne nit kii kat c' est pas quelqu'un boo xam ne daf fi nekk juste parce que dafa àndoon ak Macky Sall dina essayer yàqal ma. c' est pas un politicien. daf fi nekk pour def li nga xam ne ni moom moo di liggéeyam nga bàyyi ko fi nga gis keneen koo xam ne peut-être gis nga keneen koo gën a wóolu wala wóolu woo ko nga changé ko comme ni ko président yi amee droit. donc sécurité aussi dafay revenir à chaque fois ci ci ci euh, booy déglu même les sénégalais. ak le président Bassirou Diomaye Faye tout le temps da ngay dégg ñu naan président ci sécurité bon am na. Euh, yu jot a xew ci réew mi. am na yu mhm. ñuy njort ci am na daal lu bëri loo xam ne nit ñi danañ ci am tiitaange euh, ni mbir yi demee tey euh, mu ñoom ñu nekkoon des opposants yoo xam ne le pouvoir bi fi nekkoon defoon na lépp pour éliminer leen. Mhm. politiquement def teg ay jéego lu nekk ñu teg ko ci seen kaw ba tey ji ñu agsi au pouvoir est-ce que ñoo ñu doon teg ay pexe ngir faagaagal leen. est-ce que ba tey jii nekkuñu di teg ay pexe ngir faagaagal leen dafay laaj nag loo xam ne euh, ñoom dañuy teel a fagaru ci ci ci de choses donc pour man loolu moom waral euh, yenn euh, mbir yoo xam ne dañ ko def président dañ koy sécuriser léegi nag prérogative yi Senghor amoon Abdou Diouf am ko Abdoulaye Wade am ko Macky am ko kenn mënu ko bañal le président Bassirou Diomaye Faye mm-hmm. donc moom mooy choisir xool ñi nga xam ne wóolu na leen xool ñi nga xam ne ni doy nañu ko mu liggéey ak ñoom donc pour man loolu moom Euh, moom mooy li li li ko yoon may. et am na droit def ko te defe naa ñëpp dañ ko koy nangul. mais même, mais mais mais si même si récemment. def na nomination mu posé problème lu lu extraordinaire. exactement c'est-à-dire un président de la république. prérogative boo xam ne moom am na ko loo xam ne moom moo am sañ-sañ bi. mu mhm. def ko et loolu war a créer benn polémique. et après qu'est-ce passe on se rend compte que dañuy xëy benn bis euh, koo xam ne dafa jiite woon. Euh, sunu armée de terre ñu ñu wax ne réew France ñoom ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy sargal mhm. pour service rendu à la nation française euh, <laughs> li ñu doon waxtaanee keroog mu mhm. nekk beneen mbir boo xam ne daf lay gën a interroger waat ci nañu def très attention mhm. ak euh, li nga xam ne moom la fi Macky Sall bàyyi Macky Sall man dama jàpp ne il n'est pas de bonne foi ba fi ma toog nii donc kooku man si laa dama jàpp ne yow boo ma ne woon nitu Macky Sall laa sax c'est pas que forcément dama lay xool nu la fi jëlee mais dinaa xoolaat seen mbir bu baax baax donc pour man dina jar ay changement yoo xam ne dina ko def mu def li dal xelam cest à boo jiitee da def li dal sa xel te li dal sa xel bala nga koo def nag mhm. il faut am une sécurité boo xam ne wóolu nga ko que jàpp nga ne li nga xam ne ni moom nga bëgg dinañ la ko defal mais mais mais est-ce que tey jii am nga euh, yaakaar ni dafa am euh, euh, loo xam ne Sénégalais yu si ñu ngi ko doon wax mhm. mooy ki nga xam ni moo di président Bassirou Diomaye Faye pour mu toog am li nga xam nag moo di stabilité mhm. wala xel mu dal foofu ci biir palais ba il faut que mu changer li nga xam ne nag moo di protocole am gis nga bu mu fa nekk ba léegi daanaka ñi daroon ki nga xam ne nag moo di euh, Macky Sall jusqu'à présent moom moo moo ko daal daraat donc tey jii mu ñëw euh, tekki ndomb tànk ki nga xam ne moo di colonel Adama Gueye remplacé ko ak ki nga xam ne nag moo di colonel euh, Cheikh Diouf est que yaakaar nga ni amul lu muy éviter ci li nga xam ne nag moo di ci boobale protocole. oui bon. dafa dafa am loo xam ne cest à su sur le plan euh, sécuritaire. Mhm. ñoom ñoo xam ni ñu koy defee parce que man mënu ma xam au fond lan moo nekk ci biir. Mhm. et puis euh, parfois est-ce que ñoom suñu ay njiit du ñu am yenn information yoo xam ne ñun amuñu ko. Mhm. parce que nag euh, réew mi ñu fi nekk c'est des gens très informés très informés même ba ñu nekk ci opposition bi ñooñu ba ñu nekk tey ji ci ci opposition bi da nga daan dégg un Ousmane Sonko buy wax Macky ne ko loo réunion ci sa biir palais wala loo réunion ci sa biir siège. boo génnee man xam naa ko. waaw hmm. ah, mais kuy xam lu président di réunion politiquement am na yenn ci mbir yoo xam ne rawatina moom mu dem ba fa information di ñëw mu toog fa. Hmm. le président Bassirou Diomaye Faye ni ma ko doon bañalee tey la le président Macky Sall bu ko nit ñi daan layal naan bon moom moom vraiment am na yéene baax bëgg na liggéey mais dafa am ay saay-saay yoo xam ne ñoom lay àndal te ñoom ñoo yàq mbir mi ma ne leen le président moom mooy ki gën a informé au Sénégal amul dara lu koy rëcc cest à lépp lu xew ci biir réew mi c'est parce que moom neex na ko wala moom moo ko approuvé mhm. aujourd'hui euh, le président Bassirou Diomaye Faye ci toogaay boobu la toogee mooy amul dara lu ko raw si biir réew mi mhm. cest à il est le plus informé actuellement rawatina son premier ministre bi Euh, kuy def ay révélation Ousmane Sonko lan lañ ko miinee ci politique mooy ay révélation yoo xam ne yow amoo information bi aw ma information bi fan la mhm. koy jëlee xamuñu mais en tout cas day wax ba wax loo xam ne nii mais da naan kii fan la mën a euh, porté wu information boobu kii fan la ko war a mën a jëlee mhm. donc ñooñu bu leen amee à te tête d'un pays nag maanaam la amoon li ñu informé woon rek am lu si teguwaat ci ci responsabilité bi ñu am je pense que dina am lu bëri loo xam ne dinañ ko am léegi nag politique dafa am loo xam ne nii da nga da nga ciy communiquer uh-huh. c'est-à-dire aujourd'hui Ousmane Sonko mën na génn wala président Diomaye génn comme sorti démb bi nañu kat euh, li nga xam ne moom mooy euh, lu jëm ci sunu sunu sunu pétrole ak euh, sunu pétrole bi tàmbale nañu di exploiter génn def uh-huh. ci communication ba garantir sénégalais ne leen lu jëm ci maanaam Euh, fexe ba ressources naturelles yooyu mën a dellu ci peuple bi ñu dinañ ci veiller bu baax a baax loolu mën nañ cee communiquer soo amee programme ci agriculture ak ci santé ak ci leneen leneen mën nga ci communiquer mhm. mais lu laalee ak sécurité c'est pas des choses yoo xam ne da nga ciy naan nangam ak nangam moo xew wala nii la demee donc mun mhm. nañ jàpp ne am na ñoom en interne loo xam ne xam nañu ko ñu si siy travailler et puis c'est comme ça ku ci nekk ki nga wóolu. Mhm. Euh, moom ngay moom ngay liggéeyandoon mais ñun mënuñu xam li nekk ci biir. mais ñoom xam nañ li nekk ci biir. si c'est pas des choses yoo xam ne mën nga toog ci plateau de télévision naan diw nangam wala diw nangam. Mhm. wala ko moo tax ma jëlee ko fi wala léeg li mais ñoom en interne xam nañ li xew et li ñu jàpp ne moom moo dal ci seen xel loolu la ñuy def. mais est que lii aussi nekkul benn retombée euh, ci euh, kaw ki nga xam ne nag moo di ñaaxarañ loo keroog président bu mu demee fële ca France gis nga na euh, ñu si bëri tiir si li nga xam nag moo di conclusion que ñi nga xam ne ñoo nekk ci ambassade bi foofu euh, ñoom ñoo xëcc ki nga xam ne nag moo di ñaaxañ loo euh, pour rek mu mën a am benn rapprochement si ki nga xam ne nag moo di président Bassirou Diomaye Faye mm. ñeen ñi jàpp ni carrément li nga xam nag moo di cellule de communication bi ñoom ñoo def li nga xam nag moo di erreur ñeen ñi jàpp ni ci wàllum sécurité bi foofu la erreur bi cosaanoo mm-hmm. est-ce que tey jii bi leen nomination nekkul benn conséquence ci li nga xam nag moo di rapprochement bi nga xam ne ñaaxañ loo defoon nag ak ki nga xam moo di président Bassirou Diomaye Faye bon peut-être mais mais je pense pas parce que Euh, déjà euh, ñun man suñu président yi mës a tukki yëpp dama koy seetlu c'est-à-dire euh, président bu ko neexee. Mhm. rawatina président yi fi nekkoon dañuy rangalee ñoom bu leen neexee ay vingtaine ak ay trentaine ak quarantaine oto. ci biir mhm. réew mi yàqum <laughs> lakkum essence boo xam ne amul benn njëriñ alors que bu le président bu demee en France wala quelque part saa waay benn oto ñaari oto lay lay dajale. Mhm. pour man sax dafa am yoo xam ne dafa topp pouvoir yoo xam ne amul benn sens par rapport ak li xew la dernière je pense amul lenn lu loo xam ne ni am na ci c'est-à-dire. Euh, problème mënoon na am bu fekkoon ne dañ ne le président de la république dafa engagé benn influenceur boo xam ne ñooy àndandoo ak ñooy tukkeendoo comme le mm. président Macky Sall ni mu koy defee moom moo engagé ay nit yoo xam ne bu ñuy tukki ñoom ñooy ànd ñooy defandoo nangam mu leen di am sax lu ñu leen di fay mm. euh, pour ñuy pour ñuy gérer euh, sa communication sur sur ce plan là pour man loolu moo doon poser problème mais li ñu gis la dernière fois mais benn waay boo moom yor na téléphone am peut-être am na accès si nga xam ne moom mooy snap président du toog di xaar président si biir si biir buntu man bu may snap Silla Silla su duggee ci saal damay dugg ci saal toog. Mhm. su toogee moom le président Abdou Diouf di wax ma jël li muy wax xam nga su paree ma jël ay photo et tout comme euh, ñi yore communication ni ñu koy defee. Mhm. mais le euh, koo xam ne dafay génn man bu ma neexoon léegi léegi ma dem toog fële benn waaye su génnee si benn buntu kër ma xaar ko si buntu kër gi filmer ko. loolu mhm. pour man du problème léegi nag sur le plan sécuritaire loolu euh, comme li ma wax sànq dafa nekk loo xam ne ñu bëri dañ ci dañ ci dañ ci am ay ay xel rawatina si biir territoire national bi parce que. ñun nag suñu président yi ma mës a gis yëpp ñu génn mosumaa gis suñu président bu génn comme ni ngay gise sécurité yi mel fii mu mel ko foofu mhm. parce que da dem ci dëkku jàmbur te peut-être li nga mën a déployer déjà euh, parfois ñoom ñoo lay ñoo lay ñooy gérer sécurité mhm. nga am sa sécurité yooyu àndal mais lu si bëri cest à li ngay déployer ci biir réew mi si sécurité du du moom ngay yóbbu ci ci beneen mhm. réew donc pour man loolu moom mooy créer parfois parce que soo gisee président Macky Sall dem gars yi ko ay nen dóor ko fari xam nga loolu kenn mënu ko ko def à Dakar ko def Sénégal mais tout le temps président yi suñu génnee daanaka foofu la ñuy gën a accessible peut-être circonstances yi la wala lieu yi ñuy nekk la xaw mais foofu la nit ñi di gën am accès par exemple ci benn euh, Macky Sall wala si benn président Bassirou Diomaye fay hmm. donc pour man daal ñoom xam nañ euh, li nga xam ne nii moom la ñuy def et puis am na loo xam ne seen mbiru bopp la nañ leen ko bàyyil ñoom ñu xool ñi leen doy xool ñi nga hmm. xam ne wóolu nañ leen gis nga euh, maa ngi ñu ngi ma doon expliquer que le président Euh, ki nga xam ne moom mooy aide de camp bi le jeune. Mhm. Euh, dañ mane ne le président bu ñëwee dañ koy tegal ñetti profil yoo xam ne moom mooy tànn par parmi seen si ñetti profil yooyu noonu. Mhm. kan kan da si bëgg choisir. d' ailleurs le président Macky Sall bi mu fi nekkee ki nekkoon aide de camp am il paraît bi mu xoolee ci dossier dafa gis ne moog waa ji ñoo bokk benn date d' anniversaire. Mhm. mu mu choisir au hasard waa jooju noonu et d' kooku moom moo nekk euh, aide de camp. ba ni mu fiy jógee c' est à dire choix yoo xam ne yow yaay xool koo xamante ne déjà boo xoolee choix bi euh, Bassirou Diomaye Faye def. Mhm. je pense que dafa xool ki gën a jeune rek. parce que le, il est jeune et puis peut-être li nga mën a liggéey par exemple ak sa vision ak sa gis-gis li nga mën a liggéey ak ak benn jeune doo ko mën a liggéey ak benn waay boo xam ne peut-être il était là du temps de Abdoulaye Wade wala du temps de du temps de de mhm. am na loo xam ne ñoom seen ay choix wu bopp la renforcer la sécurité du palais bu ñoom bu ñu koy def c'est parce am nañ fu ñu ko teg malheureusement c'est pas des choses wala heureusement yoo xam ne mën nañ ci a xëy suba dégg président naan man naa a def nangam. Mhm. wala naa ne parfois yow sénégalais da ngay xëy benn bis rek par exemple démb man damaa jekki jékki rek gis ay policiers yu bëri si mbedd mi xaw ma lu tax. parce que c'est pas des choses yoo xam dañ ciy communiquer lan moo tax ñu xëy benn bis rek wàcc ay policiers xamoo hmm. est amul en interne loo xam ne ñoom dinañ ko yëg yëgoo ko xamuñu moo tax sur le plan sécuritaire lépp lu gars yi def rek nañ jàpp ne ñoom xam nañ li ñuy def hmm. et loolu nañ leen ko bàyyil xam ne seen mbiru bopp la quoi exactement alors euh, sànq sa biir wax yaa ngi koy junj muy euh, euh, kaaw ki nga xam ne nag moo di général Kandé gis nga ban tekkee ndombal tànkam kaddu yi nga xam ne jotoon nañ ko